yéen ñëpp seetaan ngeen laay fu Soko no stress aji maas Soko da koo woo pour mu yàq Mamy Cobra parce que Soko Soko dafa yor lëfam danaan jël dafa jël dataam bi yónnee ko Soko am lu mu séq ak Soko Soko ne ko da koy génnee menacé ko mu ragal ci kaw ñu sëkkatal ko mu ne Mamy Cobra dafa foo na Soko toj cottu ndeyam ci kaw live bi Mamy Cobra maa gën a def Soko fuuf dinaa lekk sa data ndey tey 23h Sénégal dinaa live ci Jessica live ci aji maas toj seen cottu ndey aji mas yow dana ñaaw de maa gën a dof soko gën kaa rakkaaju mami Cobra jotewula yow dara mami Cobra musulaa tooñ dangay jël sa téléphone coow lu am nga dul dugg ci dinaa lekk sa data ndey sa xamit sa da jaw ndey ba Sénégal da da ngay tiit man maa gën a dof soko foofu dinaa kat sa ndey bu baax gay gaay 23 heures Sénégal lay live spécial toj la fal ndeyam wasalaam baana jërëjëf